Elhadji na jàmm ci xibaar yéene kaay yi nga xam ne nag moom la ñu xëyandoo bàyyi Xalifa Sàll jamono ji nag pën ba wëreegul Les Échos ko bàyyee dañu xamal ne Xalifa Babacar a ne ci réewum Sénégal a yoon rek moo ko mën a tere loola ci jamono Dieng maître Moussa Sarr yëkkati kàddu daal ne Khalifa Babacar Sall ci lépp loo xam ne nag jëm na ci article l bi code électoral bi jamono ji nag loolee nag moo koy gàllankoor yéene kaay bi dañu xam ne daanam daal dina la xañ lu bëri ca jamono joojee yéene bi dañu xam ne génn Khalifa Babacar Sall ki nga xam ne moo di am satu sof sidibé dox na ci waaru yaatu waaw libération di ñu xamal ne dam nay yoo xam ne daal am na ci bàyyi Khalifa ba nga xamee ne bindoon na lépp loo xam ne nag jëm na ci ñooñee nga xam ne daal ñooy ay clientam ngir ñu daal leen di bàyyi l'observateur di ñu xamal ne Khalifa Ababacar Sall la muy ñaan moo di Khalifa Ababacar maanaam daal Macky Sall bàyyi gi nga xam ne nag bàyyi na ko du moom la bàyyi waaye boppam la libéré direct info di ñu xamal ne Aminata Touré maanaam daal Pastef gi nga xam ne daal am na ko ànd ki nga xam ne nag moo di njiit réew mi Macky Sall ku ko bëgg a xam fekk ko ca direct info la tribune yéene kaay dañu xamal ne daal réewum Sénégal nag lépp loo xam ne nag jëm na ci wàllu suuf ak ni ñu koy saax-saaxee jamono ji nag mbir ya ma ngay gën di mekk ndaxte bëri suuf yoo xam ne dañu koo jox ñeneen ñoo xam ne yeewuñ ko ca jamono jooj Le Soleil yéene kaay di ñu xamal ne réewum Sénégal nag jamono ji feebar faju jafe na lool waaw maanaam daal lépp loo xam ne na ci wàllu